saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa xiiroo baak ngaayoo bay dox ca diggante CNG ak arbitre ya gannaaw ba ñu rajee Sitor Ndour avi aj Babacar ak Malick Ngom 5 ak Dramé 2 ans ba léegi axlu làmb ñu ngay wax ca mbir ma bu dee père Mbaye Gueye premier tigre de Fass la mu xamle mooy Aline Sarr ne va pas reculer docteur Aline fi mu màtt dagg rek waaye du bàyyi ku xam Aline Sarr xam ne décision yi mu jël du ci deltu ginnaaw rax ca dooli moom Mbaye Gueye ne arbitre bu ne def nga ci structure bi lépp ñaar fukki ko ci yoon defoo benn erreur lu CNG mi ko def xam na ne tegu ko ci yoon ñoom arbitre yi leen di képp mën a reprocher mooy déposé wuñu préavis de grève à part loolu amul benn faute bu ñu def gannaaw bay wéy na mbuus na kenn rek ci mën dara muy Matar Ba bu dee rek li mu màtt dana dagg amateur yi ne ca tonn ne li ni mel dañ koy ñaawlu ba fa ñaawlu yem CNG li mu def tegu ko ci yoon doxalut làmb amateur ya fare ci amicale des amateurs de la lutte et toute discipline

moo waroon a nekk le tampon entre le CNG et la commission centrale des arbitres gannaaw suñu biir la nekkoon nekkoon fi président xamoon li ñuy dund waroon naa nekk tampon bi moom li ñuy xeex xam na ko bu baax jamono yi ñu nekk ci benn structure nationale nañ fi bëgg a dem grève te condition ya fa nekkoon bañ bëggee dem grève ba léegi condition yooyu moo fa nekk moom Khalifa Sow bi mbir mi amee ba léegi yeeyu ci ñàbbiwu ci même réunion ba ma doon kaase a ñaaw ci li mu fenn kuréel goo xam ne Alioune Sarr mooy buur mooy bumi mooy def mooy dindi kenn amul sañ-sañu wax comité bala muy bari bari ay nit kenn sañ ca wax Alioune Sarr mooy wax mooy dindi lu ko neex mooy am buy wax dañuy naan patt kenn du àddu bu waxee ba noppi wax jeex na la mu wax mooy am lu président ba wax mooy gonga lu mu waxul gaay waxuñu ko ña fay joxe seeni opinion kenn kese la muy mànga de bu weesoo mànga ñeneen yi patt pataaral la ñuy def li ni mel nag dictature xaw ma dictature la xaw ma lu mu doon waaye CNG mu ngi ci sous pression giri ŋàññi la nekk ci làmb ñi ci ëpp na fi CNG jógee rawatina la ñëpp jóg ne dafa doy doyal nañ ci CNG nañu dem mbooleem ñi nekk ci làmb te dégg mbir ma jàpp nañ ne du yoon waaye professeur droit ba nekk ca université Cheikh Anta indi na ci ay leeral yu leer nañ moom professeur droit public boobee la mu xam ne mooy CNG mënta raje si tonduur bu ñu respecté parallélisme des formes wala parallélisme des procédures danañ xam ne CNG amul droit raje si tonduur bu ne bu ministre bi te même ministre bi ci boppam buy rajo Sitor Ndour dana ko motiver dana justifier radiation bi wax lan ak lan moo tax muy rajo Sitor Ndour ñaar ñi nga xam ne même acte juridique moo leen nommé kenn mënu cee dàq sa morom CNG structure la waaye amul compétence dàq Sitor Ndour li CNG def niñ koy tuddee ci droit mooy une incompétence matérielle CNG li mu def rajo Sitor Ndour tegu ko fenn mënu ko waru koo def te du compétence teg na ko ci yoon jàppale leen rax ca doole ñu ne dimanche ci suba woote nañ ab conférence de presse buñ ca jógee rassemblement bu mag la amal daal di dox doxu ñaxtu la ñu bëgg a mooy dictature Alioune Sarr jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ëllëg incha allah